mbay mi ba tax na daal jamono ji fës na lool ci actualité bi le jamono ji nag moom ñu bëri bëri ña ngi cee ŋawtu ŋawtee ne daal pression bi métti na maanaam xoxatal gi jaarale ko ci ñi nga xam ñooy enseignant chercheur ak ñi nga xam ñooy personnel administratif et technique ak ñi nga xam ñooy étudiant seen bopp la ñu bëgg daal mooy ñu ubbiwaat UCAD ba tax na kat nekk na daal jamono ji féewaloo goo xam ne am na ci askan wi le waaye mu lu njëkk ci taarixu Sénégal wala ci institution bi ay enseignant ay personnel administratif ak technique ak ñi nga xam ñooy étudiant seen bopp ne daal dañoo war a ubbi amphithéâtre yi ubbi li nga xam ne mooy kudd waaye tamit gis nañ ne xoxotal gi nag moom ci wàllum social ci année bii ci atum 2023 jàpp 2024 wart bett kenn ndax ñu bëree bëri ñi nga xam ne seen xam-xam màcc ci wàllu woowee gis nañ ne ak ñakk a doxalin goo xam ne moo am ci enseignement supérieur bi waaye tamit ci mai 1968 ba jamono ji espace pédagogique yi gis nañ ne kat ñi ngi ci ndëgg sarax gu metti waaye sax ak yëngu-yëngu ba ca mujj ba tax ñu daal di koy tëj ukat yàggul violence bu metti metti tax na daal ba ñu baree yàq bërëb xam ne tam mooy sest yi wala sax ak i document kon ñu gis am na événement yu bëree bëri yoo xam ne war sa mën a jàngale ndax contexte électoral bii du war ta bett kenn ndax ak tànneefu gouvernement bi nga xam ne ay enseignement à distance maanaam kenn du fa teew waaye tamit jum jaare ko jumtukaay xarala yi kon ñaari option yii gis te ni kat bii nar na baax waaye tamit bee nar na bon kon enseignement supérieur yi gis nañ ne nekk na cëslaay bu nga xam ne daal lu a solo la naam waaye tamit ñàng meeg ñàngale mi ci université yi wala njàngale mu kaw mi nag moom ba tey nekk na daal ci wàllum tàggatu lu am solo ci askan wi kon gouvernement ci boppam moo war xool ay saafara jaarle ko ci nga xam ne daal ñoo ci borom xam-xam kon nag bu ndeful nank daal mbii coo mbaaloo gi nga xam moo am ci ngawti ngawtee gile ak la nga xam daal moo nar a ñëw bu mbett kenn kon ñàng meg ñàngale mi moo ci nar a sooxe